mbokki internet yi info 221 dal leen ak jàmm ci xibaar Siré Sy nekk ab chroniqueur ci Seneweb TV ginnaaw ak génnam di xamle ni dana rek déposé ab plainte bu ñeel député maire Ahmed dara ginnaaw ab analyse ba nga xam ne defoon na ko ci installation assemblée nationale ak mbir ya fa jotoon na xew waaye itam gouvernement bu bees bi nga xam ni président de la république daal dina koy def ci jamono ju ñu toll nii loole waral ak ñàkk a gisin gum ñàkk a gisin ak Ahmed Aïdara waral Ahmed dara daal di koy rek contacté ko ca dekal ay menaces de mort loolee waral Serigne si rek daal di def déclaration ne dana def ab plainte suba ci euh, lundi ji ngir rek ñeel Ahmed dara ci jëf ja nga xam ne daal dina koy def mu jëmale ko ca kawam ca geneen wet ga ka nga xam ne moom moo di président Malick Gakou ma ngi koy rek toppee moom Serigne si loolee di diffamation waaye itam diffusion de fausse information mu mel ni kon ka nga xam ni moom moo di Serigne si ma ngay topp Ahmed Aidara waaye itam ña ngi koy toppaat ca gannaaw ci lu ñeel diffusion de fausse information waaye itam da nga xam mbokki internet Infos 221 daleen ak jàmm ci xibaar Siré Sy